maaleykum waaw ah, sant yàlla. tey histoire politique bind na que ni euh, stade bi Dakar Arena 15000 places la Ousmane Sonko moom mooy premier homme politique bu ko njëkk a feesal ba ci biti nit ñi mënuñ dugg euh, yan moo nga njëkk a yëkkati. ah xanaa wax rek nii lu lu war a mën a nekk la. lu war a mën a nekk la ndax euh, Pastef moom fu mu woote rek. waaw xale yi wane seen bopp Ousmane la xale yi di wër Ousmane la jigéen ñi di wër. Ousmane la Sénégal yëpp soxla Ousmane taw la waaw ku ko seen da nga koy soxla kon nag moom la ñu wuy si tey rek gunge ko euh, jàppale ko ndax ñun dañu ne politique bi ñuy def du ñu jël xaalisu pouvoir di ko ci boole kon ku nekk tey da nga ñëw indi sa asaka yéene ñu ànd jàppale suñuy candidat majorité bi ñu bëgg assemblée nationale incha allah ñu am ko donc bu Ousmane wootee rek. waaw ñëppay ñëw. ban alerte la ci opposition bi nga xam ne ñoom aussi ñu ngi préparé élection législative ah, ah ah, ko woon yëguma ko woon. mais am ay tenor yu nekk. Sonko rek la la ñuy topp waaw. am solo mu toll nii Kédougou ak Bakel mooy benn cagnotte est que loolu nekk na lu nga xam ne tamit mën nañ ci dut baaraam. waaw cagnotte boobu ñoom dañ daan jël seen bos mm-hmm. boole kook li askan wi nekkee ci àll bi ci métit di ne ko dëndiix lekk looloo gënoon a métti ñoom dañ daan jël xaalisu pouvoir ba pare jël xaalis bi nga xamante ne moom la ñu war a dimbalee néew ju doole yi lépp ñu jël ko def seen gafaka ak ñi ñu àndal ñun tey ba tey nangu nañu de dañu ñëw tey def kañot mais kañot boobu suñu ñaq la jëluñu alalu réew mi waaye ñee la jël di leen yóbbu dañu jël xaalis ba ñu moom nga xam ne mooy seen wàll ci réew mi jox leen sax lu ëpp ñu dem fekk ji leen kon ku ci am looy wax rek amoo yërmande ku dem foofu fekk li fa xam xew gis nit ñi métit bi ñuy dund nga am loo ciy wax mbaa nga ciy dingat rek dëgg dëgg amuloo yërmande kon nag nañ ñu ñaanal ñu mën leen taxaw ñoom ñu sax di wax nañu ñëw ànd ci biir ñu jàppale ñooñu génne leen ci coono bi ñu nekk moo gën ñu ciy wax wax bu ñaaw parce que loolu du seen leen ñu ñu yegg foofu te loolu lañ doon xeex ci régime Macky Sall muy li nga xam ne mooy wàllum ah, loolu moom loolu moom circulation des personnes et des biens loolu yëguma ko ah, <laughs> loolu laa jógee léegi Bougane Anta Babacar Ngom ak Thierno Bocoum dañ leen a téye mais yooyu dañ ko doon xeex ci régime ki nga xam ne mooy Macky Sall ah, may ma ma wax damay dugg maa ngi doog a dugg Dakar Tambacounda ak Goudiri laa jóge doon taxawu ji askan woowu kon bu may doog a yegg si ñëw fii buñ ma waxee loolu dama naan yëguma ko mm-hmm. mais nag bu dee am na xëy na ñàkkul am na lu tax mm-hmm. waaw mais yëguma ko je viens d'arriver à Dakar merci beaucoup merci gaañ naa na day dem wàcc ak daal day dem wàcc ma wàcc daal. waaw demal avancé. waaw bañ na yàqal. waaw mën nañoo am réaction ma réaction. ba taxawee seen kanam bu baax da ngeen xaw a aar yaa yaa. waaw honorable ay dem mooy wàcc si noonu. kër Mali gàpp laa la bëgg a def. yéen a mu ngi ñëw comme ça. et puis yaay Sonko la de affaire deram. fii yaay Sonko yaay Sonko yaay Sonko. noo gisee tey 15000 places yi nga xam ne Sonko histoire politique moom moo ko njëkk a def. nañ dem Ablaye Wade nañ dem Ablaye Wade nañ dem Ablaye Wade. sant yàlla rek waaw waaw. lii moom c'est exceptionnel. voilà c'est exceptionnel. eh eh. ana ana waa ginnaaw waa léegi Cheikh Mbodj seere gars yi dem seen loge toog fa nga dem wëri jigéen yi parce que man gisuma beneen kii bi convoi léegi convoi bi yëpp nañ dem ànd toog benn place pour kaar bu ñu génnee du ñu wéer xam nga fii dafa gannaaw ngeen repéré kaar yi ngeen xam fu ñu taxaw comme ça bu ñu paree dañu dugg daal di taxaw ñu ñu dem ça va bien. dama la xaar merci ak yow. ñu la élément franc. ah ana moom woon na ma léegi léegi. kadi waaw. mais bii mooy via am ñaari via bii bii mooy lan la. bii ban via bii la. waaw eh. ana ana ana via bii. ñëpp fii la. maam jaaree. maam jaaree. maam jaaree. 1 million fii. ay mer. mais mais dugg na yow. am na mer lan àndal yow. maam jaara sër. amoo leen carte moom doo leen dugg moom. amuñu carte de carte baa ngi ne. dawal ma xool tamit. am maam jaara faama ngi noonu. kaar ngay indi wala kaar ngay indi. ah booy. booy loo kaar. ñun. zee zee. waaw la zee. ñun zee. borom. waaw maam Diarra Fap. maire bi rek lañuy topp amul ay rams rams ay daw rek. ku doon nga ni. maam Diarra Fap sol.